Euh, ñun ñëpp xam nañ ne tey moo doon bés bu mujj bi nga xamante ne bii moom mooy bésu bindu bi ci liste électorale yi donc comme ni ñu ko doon defee donc ñu ubbi 8 heures war a arrêté liggéey bi à 18 heures loolu nag du suñu coobare loolu code électoral moo ko wax donc ñu ñu ñu appliqué ko malheureusement bi ñu koy appliqué am na ay nit yu fi nekkoon ñoo xamante ni bii xëj na liñ ko appliqué tax na ba mu mënuñoo bindu. ñooñu nak xamna né ne ñoo walbatiku dem ci ginnaw donc commencé jël ay xeer di sànni ci sous préfecture c'est exactement ce qu'ils ont fait donc sànni fi yàqate li nga xamante bi moy ñett bureau yi fi nekk dont le bureau de l'adjoint au sous préfet bi ni nekk nii te ngeen nu mu ngeen gis ko ci sama ginnaw manam vitre yépp gaay gars yi nu mu tuddati xale ni nu mel mo moo nekk ci bureau bi ceci mom waye tamit ci bureau bi nga xamanteni fa lañ doon sax liggéeyee ba au point d'ailleurs que dañoo mujjé lañ doon liggéey ñu manam arrêté ko dem jëm ko motali sama bureau donc lool moy li nga xamanteni bi mo fi xam voilà. ñi nga xam na moy kilifa yi ci kaw yëg nañ ko. waaw ñom ñep yëg nañ ko parce que bi mu amé rek ci tàng tàng bi lañu rendre compte préfet du département de Mbacké mom aussi mu rendre compte au gouverneur maintenant ñom ñu rendre compte au niveau supérieur maintenant ñu ngi leen di déglu lépp lu ñu ci mbir mi rek inshallah rabbi ñu def ko Voilà.